السلام عليكم ورحمة الله بكين نيو يدلن زيار دلن بالحقين عن برم سبحانه وتعالى بولي جقن حديث تيب دفعي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول صحيح ابن ماجه ينتبه صلى الله عليه وسلم دفع وقت حديث بنه لأبو ëpp ci بميل مو يجوغي ngi تورنخ حديث tuur ndox صحيح ابن ماجه ndax yenn sallallahu alayhi wa ëpp ci mbugalu bàmmeel mu ngi jóge ci toon tuur ndox maanaam kuy tuur ndox te du seetlu di fuqaha yi du tuddee istibra mu taxaw néega di ko ba lépp set ba génn muy doog a wisu surtout góor ñi ci góor la gën a jafeeti waa góor moom lu mu gàtt gàtt bu duggee ci toilette war na fa tëdd juróom-ñaari minute lu mu gàtt gàtt gàtt pour teewlu ba li war a génn ci moom ci sobe yëpp génn ko deful saay bu génnee julli bu kabaare day julli julli ga bu doon trente ans la quarante ans cinquante ans soixante ans dara baaxu ca fekk mënul taxaw laab ji te loolu dana ko jugal jural mbugalu bàmmeel ëllëg bu ko defee mbokk yi ñu góorgóorlu bu baax ci wàllu laab wàllu laab jàmm yàlla de defe naa ni mën naa na de def julli def werd def zikru def jàng alquran yëpp yomb na de mais ndax bi ñu koy def condition yi mu laaj am na mooy laab nañu set nañu ndax nit bu setul buy ñaan buy ñaan yàlla ñaan googu du du nangu du am li jaaba malaka malaka yi nga xamante ne ñoo war a taataan ñaar gi du ñu teew il faut mu set il faut mu laab few mu laab set bu ko defee bu ñaanee rek incha allah làmmañam set du lekk lu lewul du lekk riba du lekk alal ju salte ñaan nga day dem ala kulli xaalin tamit bu dee jaamu yàlla ànd ak laab incha allah ànd ak teewlu lu mu jaamu yàlla yàlla dina ko nangu ci kàttan ak mbaaxam ñu góorgóorlu baax ci wàllu laab tuur ndox surtout tuur ndox surtout góor ñi lu ma tënk xadis aqul qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh